asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ma ko ubbee nag inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon la ñuy wax maanaam a ah, loolu nag su ngeen ko déggee mooy dafa am ku fi bàyyeekoo wuyu ji boromam kooku nag bokk ci askanu làmb liggéeyal làmb muy suñu papa duubale ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana waaye li may def mooy balaa may dikkaat ci loolu dama leen di bàyyi ngeen dem déglu yëglikaay yi liñ indi ñu dikkaat yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 6 septembre 2021 dañu ñëwatin ci likkaay yi tey nag fa ñuy commencé mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maanaam ci yàlla lu jóge ci ca dellu loolu nag bu ngeen ko déggee mooy daa am koo xam ne ci ñun la bokkoon bàyyeekoo fi wuyu ji boromam waaye tamit bokkoon ci askan wi nga xam ne moo doon askanu làmb ñu naan ko duubalees Mamadou Sakho te ñu gënoon koo xam ci turu duubalees yëg likaay bi suñu làmb tey xëy tàgge nu ko moog les arènes bu dee suñu làmb la nag moom mu ngi xamal ne daal maanaam moom dund lu toll ci juróom-ñett fukki at Gueye numéro 2 ak Sa Thiès mel ni ki nag yëglikaay ba ñëw na dina xam ne daal bu bëggee dégg dëgg diir bu yàgg ngi mu tëdd feebar feebar boo xam ne daal moo ko mujj yóbbu mu wuyu ji boromam waaye yëglikaay ba tamit fàttaleku na ko ci loo xam ne jaar na fa ay jëf jëf yoo xam ne def na ko ci làmb ci ay yoo xam ne mook ñoom seqoon nañu ay tàkku tàkkusaan ci année soixante-dix yi jàpp quatre-vingt yëglikaay ba xëy nu dinu limbal dana Papa Kane Ibou Senghor Tubaabu Joor Moussa Jàmme Maam Góor gi Njaay Samba Jaw remarque Boy Ndiaye ba ci Mbaye Guèye Tigre de Fass ku ci nekk rek Double jaar na ak yow bés te ba mu jaar ak yow bés maanaam dañ la ne nga muñ maanaam dalaa daan yëglikaay ba yemu ca xamal nañu ne tamit Less boo bëggee dëgg-dëgg nekkoon na koo xam ne wàllum international wane woon na ca boppam ndax la nga xam ne nii mooy compétition sportive wane na ca boppam yëglikaay bi nee nañu maanaam la nga xam ne mooy compétition sportive bi ëpp doole ci àddina bi Double dugg na fa maanaam participer fa ñetti yoon muy jeux olympiques yëglikaay bi toppal ñu ko dinu xamal ne fa nga xam ne nii fa la njëkk wane boppam moo ca Montréal ca jeux olympiques ya nga xam ne amoon na fa 1976 yemu ca 1980 tamit ca Moscou fa nga xam ne moo doon ca Russie duubales bokkoon na ca Los Angeles tamit 1984 tamit bokkoon na ca waaye fa nga xam ne nii moo di Nairobi tamit am na fa la nga xam ne moo di médaille d'or africain ci wàllum bëre mu mel ni kon daal moom boo bëggee dëgg-dëgg daal marqué na empreinte wane na boppam fii ci réew mi waaye tamit représenté na Sénégal défendre kuréel national ba tàyyee tayyi yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu doom ja Balla Gaye numéro dinañ yëglikaay ba nee na daal fan yi nu génn wala samedi sax bër ki dem ay rumeur a ngi doon jib maanaam ay waxi suuf yoo xam ne daal di xam le ne Balla daa wéra di ba nu hospitalisé ko Balla Gaye numéro di nag nee na daal boo bëggee dëgg-dëgg nee na ah moom day mbir mooma daal da koo sax yéem ndax nee na mbir ma ba mu amee ay nitam ñoo ko woo xamal ko ne ko génnal wax rawate na ko mel ni Aziz Ndiaye ndax nag ñu ngi wër daal di wax fu ci nekk ci àddina bi daal wala ci dëkk bi naan dangaa wér di ba ñu hospitalisé la moo tax nag Balla ba mbir ya amee moom Balla Gaye numéro 2 génn na daal di wax fa nga xam ne moo di ca Gaston production ak Lutte TV la mu xam ne nag daal ne na moom day mu ngi ci jàmm te itam daal jàpp na ne ay wax boo demee ba di ko wax daal war nga koo teg fu leer wala la ngay wax nga gëstu ko ba xam ko waaye di wax nii rek ngir bëgg a wax ngir ngir wut bës moom daa jàpp ne loolu est-ce que am na lu ko jar te itam ndax loolu dana tax sab liggéey set yamu ca moom Balla Gaye beneen rumeur boo xam ne mu ngi doon daw ci digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 mel ni ñoom ñaar ñëpp ku ci ne wax na ca Balla wax na ca Lac wax na ca ci seen am jafe-jafe wala boog ñàkk a juboo Balla ne na loolu amul tey suba waxi noppi ñi koy wax kay xanaa ñoom ñoo ko xam wala ñu fekke ko waaye ñun daal amuñu benn jafe-jafe Lac 2 tamit wax na ca loola xam ne ne daal moom ay jafe-jafe moom Balla Gaye ne na loolu moom ñi koy wax sax ñoo ko jaaxal ndax fi ñu ko dégg ak fi ñu ko gisa la ñu xamul xanaa Balla mu ñàkk ñëw ci ngénteem tax ñu ne maanaam daal ay dafaa am te Lac daa jàpp ne Balla loola la ko tënkoon bokk na ca xaritam boo xam ne wala nitam koo xam ne jagañoon na ko génnoon àddina waaye ne na mook Balla moom ay jafe pour seen diggante dana ko koy xaar bu yeboo nga xaddi ndax amu fa tey suba waxi noppi Lac 2 moo wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala beneen wax xale boo xam ne ci keppaaru Balla gay 2 ak Lac de Guiers 2 lay yeewoo dëkk ca géej waaye ñoon ko taaj caatu daaw Daouda Fall ren nag moom wane na boppam ci saison làmb ji parce que nag tournoi idéal ñu ngi ba nga xam ne ca la duggoon wane na fa boppam ndax yankaaw albarka kayre ku ci ne ba mu dajee ak yow maanaam ci ay seconde lala daan yëglikaay bi nag xëy na tey seq moom ay wax xale ba nag mu ngay wax la mu bëgg ak la nga xam ne nii daal fa la fas yéenee dem ci làmb leneen loo xam ne yëglikaay ba toppal nañ ko muy bilan wu écrit dóor dóoraat ba ne zos moo ne ca kaw ak garga mboose yëglikaay baa ngi xam ne daal boo bëggee dégg-dëgg dóor dóoraat moom seeni mbir ren taxut dara dara dara parce que nag huit combats lañ def quatre victoires quatre défaites yëglekaay ba moo xëy tey ñëw dina ko wax beneen beneen mbër boo xam ne doo doot googa léegi fa la nekk muy booy fay moom nag la mu xëy daal di wax nee na ñi nga xam ne nii ñoom la maaseel jamono nee na dañ koo ragal amu ci kenn koo xam ne daal am nga fitu lekk ko amaasam bëre ak moom booy fay moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di les arènes les arènes tamit ñëw na diñu wax daal duuba lees ak génn àddinaam diñ teendil ay xibaar yoo xam ne daal nee boo ba ko tëraloon samedi da ko gënoon yóbboon ko ci ab clinique nee nag bañ ko yóbboo samedi ci clinique ba maanaam ba mu fa fanaane ba bët setee daal la wuyu ji boromam waaye yemuñ ca yëglekaay ba laaj na ñoo xam ne fekk nañ jamonom muy Abdou Bassi directeur technique national nee na Afrique ci boppam moo ñàkk koo xam ne nii daal ku rëy rëy la ci wàllum sport Abdou Bassi loolu la wax Amadou Kat Diop tamit nee na kenn ñàkk maanaam champion la boo xam ne sportif bu mag a mag a mag boo xam ne tamit bu modeste daal moom la ñu ñàkk muy duubalees kat yi moo waxee noonu mel ni ki noonu fa nga xam ne nag moo di ca fa la ñuy dem écrit tay si nga ku ne xam na ne fa la ne waaye bul faale tamit ku tudd Pikine tudd ko ndax fa la ne bi nag ne na ñaari écuries yi moom ren seeni mbir doxut waaye loo ci mën a dégg bul faale moom nu mu mën a def tay si moo ko tane ndax bul faale moom yëglikaay bi nag benn combat lañ bëri benn défaite lan bu dee tay si nga bëri nañ neuf combat am trois victoire ak six défaite yëglikaay bi moo xëy tey dinu wax lu mel ni ki noonu yemu ca moom kaay bi yem ñëw na tamit ci Balla Gaye numéro deux ñun xam ne daal moom mooy bureau ña nga xam ne moo di icône yi moom moo ay ci ñoom war ñu fotoom ak Mohamed Ndaw Tyson ka nga xam moom la mu def ci record ci victoire daal la bëgg Balla Gaye 2 ak Modou def ko muy Boy xëy na tey tamit di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ca mu di ab daje waxtaan maanaam réunion samedi ji nga xam ne moom la ñu génn Adrien Senghor nag la ko waral maanaam daal mooy Adrien Senghor daal fa ñuy bëree lambi simple ji yëglikaay bi ne na compétition yi dina commencé le 17 jàpp le 24 octobre yëglikaay bi di les arènes moo xëy lu mel ni ki yu fees la ba a jëkk mooy sunu lamb ak la mu xëy wan ñu ko muy général Malika fils de Balla combat ba le 24 octobre lay am Assane Ndiaye production moo fa jaar waaye tamit les arènes moom que mu xëy di ko delluwaat njukkal ci ay photo yu yanja yaañ mooy duuba lees la ñu yëglikaay ba xëy tey dina ko wan ci ay photo mu mel ni ki daal addinaa ngi nii lu waay di def na rafet te nga teg ko ci aw yoon ndax lépp ci ne lay mujje te duubalees jaar jaaram ña ko jàpp nañ ne daal jaar-jaar gënatu ko jaar-jaar gënu koo rafet kon yàlla na ko yàlla jéggal xaare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf kon mbokk yi dégg ngeen tey yëglekaay yi moo xam sunu lamb la moo xam les arènes la fi ñu xëy tey génn fa maanaam mooy ki nga xam ne nii moom mooy sunu papa Double Less du Sakho yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana mu mel ni ki nag ñëpp ci xëy dajeendoo bu ji na boromam démb ci dimanche yi la ko def fa nga xam ne moo di jëkkëram Kër ma saar ñu ñaan yàlla xaare ko aljana te jégal ko yëglikaay yëpp ñëw nañ ci boo xoolee hmm, di nga ko gis noonu ci sunu làmba ndeysaan mu nga yëkkati loxo ba ngeen gis ko noonu vraiment mu nekkoon koo xam ne ah comme ni ñuy wax rek àddinaa ngi nii lu tëgg tas te lépp day jeex kon moo tax nay rafet rek ci tolloo loolu moo waral tey ñëpp di ko ñaanal parce que jaar-jaar baa rafet euh, ba tey mu dundul toll ci juróom-ñett fukki at comme ni ñu ko yëgle kay waxe ak itam fi mu jot a jaar ak ñi mu jot a jànkonteel mel ni ki tamit li nga xam ne moo tax ñu xam ko ñun muy làmba daa mel ni li ñuy nettali tey yëgle kay bi indilaat ñu ko ci ay combat du yëpp nag mais am na ci jukki indil ñu ko ñoo xam ne jot na defante ak ñoom mel ne kon moom champion kenn daaw ko nattable ndax boo xoolee bu buñ la naa hmm, nga xam ne ni moom moo di Papa ah bu Senghor Tubaabu Joor Moussa jàmme maam Gorgui njaay ah Samba Diaw Mor Fadam Boy Remarque Boy Boy Ndiaye mbay Guèye ñi ñëpp jot na leen daan yaa ngi dégg kon loolu moo lay wan ne moom itam ñu mu ci tolloo wane woon na boppam yemu ca waaye moom itam mën nañ ne international la woon ndax participer na ci ci ay Jeux olympiques trois fois yëglikaay bi xamal nañu lu mel ni ki noonu mel ni ki euh, fa nga xam ne nii fa la njëkk a demee ci ay Jeux olympiques ah dama leen koy wan ndax liñ ko yëglikaay bi waxee noonu mooy fa nga xam ne nii moom moo doon ca euh, Jeux olympiques yi mu njëkk a mooy yi amoon ca Montréal 1966 yëglikaay bi loolu la ñu xëy wax xamuñu ne tamit mu ci jógee dem na ma demaat na Moscou ci ay yaa ngi dégg wanewaat fa boppam loolu 1980 la woon 84 mu demaat Jeux olympiques ca Los Angeles ca États-Unis kon moo lay wan ne moom international la woon nekk na tam tamit médaille door africain fi nga xam ne moo di ca Afrique ci Euh, dëkk bu ñuy wax Nairobi loolu lépp kon moo lay wan ne kon Double Less na empreinte am ci li nga xam ne nii moom la doon def teewal na Sénégal yàgg naa gàddu couleuru Sénégal loolu nag liñ ciy wax ak autorités yi mooy ñi nga xam ne nii ay sénégalais lañu ndax sénégalais yëpp la war a taxaw mais ñi nga xam ne tamit dañuy porter drapeau bi moo xam ñi bëre la moo xam ñi football la moo xam ñuy basket la kum ci mën a doon rek ci côté booy déf défendre rek couleuru Sénégal ah même sax kiy wax te mu leer na day dem ay jongante ngir waxi te couleur su réew mi lay yóbbu ñooñu nañ leen di xel di bàyyi xel bu ñu demee ba daan def ba bàyyi ñooñu di leen taxaw utal leen ay opportunité yoo xam ne dina tax seen dund gën a stable yaa ngi dégg parce que tamit da nga ci gis ñoo xam ne après bu ñu ci jógee yooyu ñu def yëpp après dañuy mujj ci mujj goo xam ne du neex te des lool li koy waral mooy pour man autorité yi ñoo leen du taxaw taxawaay bi ñu leen war a taxaw loolu nañ ci bàyyi xel waaye nag moom yàlla dogal na ni wax dëgg yàlla yàlla may na ko njaboot macha allah ku ku am doom bu mel ni Balla Gaye ak Sa ah yaakaar naa ne itam euh, bëri na ñoo xam ne tey bëggun nañu ñu yeewu seen kër kon defe naa ne loolu tamit teraanga la ndax nit teral la am na solo waaye yàlla moom bu la yónnee teraangam nga xam ne yàlla moom bokkul ak kenn yàlla na ko yàlla jégal te xare ko di ko jaal ay doomam njabootam yépp rawatina Balla waaw di ko ko jaal bu baax a baax ak Sa Thiès parce que ñoom la yàlla def ñu xamante ak ñoom ci ak njabootam yaa ngi dégg ñu ngi leen koy jaal seen way jur woowu ba tey bu nu continuer ci loolu ba tey Balla moomu xam ngeen ne samedi ji passé dégg ngeen ñu naan ay Balla dafa wér a déeg nangam sangam te ñun moom comme li ñuy wax fii ci Equivox wala Babacar lépp lu leen di wax si làmb day bëgg mu doon lu réel lu wóor waaye pas forna na ñoo xam ne nag lii tax ñuy def yooyu pour man di wax ay wax yoo xam ne du taxaw parce que dama naan dañoo bëgg bës dañoo bëgg ñu seetaan leen dañoo bëgg ñu liir leen te loolu est ce que jar na ko balay càag nga gëstu diw dafa feebar ba ñu hospitaliser ko te yow la ngay wax dara dara amu ci la preuve bés bi ñu waxee loolu bala ndeysaan man ci bëgg lu leer parce que ñaa ngi ma doon woo jokkoo nañu mu nekk ci jàmmam ma toogaat quelque temps gis ko ci Gaston Production ak Lit TV mu wax fa yaa ngi dégg ne di xam ne ne mu ngi ci jàmmam ah loolu defe naa ne nañu xoolaat sunu bopp nañu xoolaat bu baax li ñuy def bëgg ay information wala bëgg siiwal wala bëgg ku la seetaan jarul yenn yi yaa ngi dégg yooyu am na yoo xam ne nii jaru ko ye euh, waaw loolu da koo jarul loolu jaru ko ba tey bu nu continuer euh, ba tey si géejawaay googu beneen xale boo xam ne tamit wan nañ ñu ko muy Thiatou Daouda Fall ak muy wanee boppam macha allah muy xale boo xam ne rek li ñëpp wax muy dëgg mu ngi ci yoon ah l'essentiel que bu bul gis sa bopp rek parce que am nañu fi newoon ci yoon ñu ne leen yéen a nga ci yéen a nga ci ñu dem bëgg commencé firi ay mbagg am taalibe am yar am ay teggin déggal say kilifa te yàlla may na la ko boo ko defee ak ku mu man a doon sax laay wax boo ko nekkee mën nga mucc loolu moo am solo gis ngeen ko noonu ñu wan ñu ko muy caatu daaw da faal bu nu continuer dóor dóoraat bu ñoom garga mboose mu mel ni écrit boobu tamit ah doxle wu ñu ren ndax gis ngeen noonu ñu wan la sos wan la garga wan la musa Balla gay wan la góor a soog yaa ngi dégg mu mel ni boo xoolee huit combats lañ def quatre victoire quatre defet loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmp bu ñu fa jógee dem les arènes les arènes tamit ñëwaat na ci dubalees ah di wax ne démb wala la génn àddina waaye nag feebar bi ko tëraloon yàgg na lool waaye bi mu ko xam naa sonalee bari ki démb ci samedi ji lañ ko yóbbu ci benn clinique far mu génn àddina ba bët setee ci dimanche ji kon li waxoon sànq rek na ko yàlla jigal te xare ko aljana waaw mu mel ni Amadou Kati Diop ak ki nga xam ne moo di Abdou Badji tamit def nañ ci moom ay témoignages yu ama am solo ngeen koy gis noonu ngeen di gis Kati noonu di gis Abdou Badji yaa ngi dégg Kati nekk yore écurie Fass Ndakaaru Abdou Badji nekkoon ancien directeur ni loolu moo lay wan ne jëf nay rafet rek nay rafet rek parce que bés ñëpp dañ koy am waaw maanaam nit awa nit amaale wu ko barke nit awaane mu ko màqaama wala alal déedéet bés la boo xam ne du jaaz day ñëw yàlla nay ñëw nag fekk ñu ci lu neex sunu borom ak itam ànd ak yërmandeem loolu la ñuy ñaan waaw mu mel ne bu nu continuer ba tey waxaat ci làmb bul faale ak taay si nga ren doxle wuñu ndax bu dee bul faale la benn combat la ñu am benn défaite taay si nga trois victoires six défaites mu mel ni foofa doxut bul faale nag moom dama naan ah Tyson yow mi nga xam ne yow yaa sañ sanjoon bul faale itam ak lu mën a xew ak ci loo mën a ne pour man xaw ma yaa ngi koy defal defoo ko parce que tamit damay wax nag suma ma xalaat war nga mën a geesuwaat écrit bi pour combat yi loolu tamit da ciy am solo parce que nekkoo n'importe quelle personne ci dëkk bi tey rawatina ci làmba yaa ngi dégg te dafa defe naan écrit boobu war ta fay ndax écrit boo xam ne nii Mohamed Ndao Tyson nekk na fa roi des arènes yeneen xale ñëw jaar fo ñoom Aliou Mané ñoom Tyson 2 ah ñoom Nguer ñëpp ñu xam leen donte tey am na ñoo xam ne bàyyi ñi ba ñi ñi ñu ngi ci leneen ñi ngi ci yeneen écrit tey xale bu mel ni Valdo nekk fa yeneen mbër foofu waras na koo suuxat yaa ngi dégg parce que Valdo moomu détenteur drapeau de l'état si loolu taay si nga tamit boo ma seen donte kii na waaye parce que saison bi mu bëriwul ren ay combat ñoom am nañ neuf combat boo xoolee parce que trois victoires six défaites moo bëriwul 33 pour cent la ko yëglikaay bi tënkee moom les arènes mel ni kon daal loolu tey moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi di ñaan jàmm Sénégal di wax ne affiche yooyu ngeen di gis noonu ci sunu làmb mooy euh, fils de la ak ki nga xam ne ni moom moo di général Malika day ndeysaan Assane Ndiaye moo tëgg seen combat combat bu yàgg yoon ñu war a bëre nag le 24 octobre. yaa ngi dégg loolu tamit di affiche benn affiche boobu ngeen di gisaat les arènes andi ko muy rendre hommage duubalees ah wan ñu ay photom macha allah moo lay wan ne addinaa ngi nii demal maa ngi ñëw la yàlla na ko yàlla jigal te xare ko aljana encore une fois di jàmm Sénégal wax ji am ci diggante ñu naan ay Balla gay ak Lac de Guiers dañoo problème ñoom ñaar ku ci ne wax nga Balla wax na Lac wax na ñuy xam ne ne ñoom amuñu jafe ay teq-teq mooy am yooyu yëpp nag nañ ci bàyyi xel maanaam créer diggante ay ay nit ñu ne ci jàmm moo gën ñu ne ci ay même boo xam ne ñu nekkul ci jàmm sax pour man di ko siiwal amut njariñ li ci ëpp solo mooy boo ca mënee dox jàmm nga dox ci jàmm ci suuf jubale leen bu dee loolu am na te ñoom ñaar ay kilifa lañ mag lañ te ñoom ñaar ku ci ne la nga wax defe naa ne mooy li nekk amuñu problème vraiment man daal doy na waar daal Sénégal ah, ah, dafa yéeme mais nag bon ah àddinaa tëdd noonu yéen a siiw ke ku bindoonu tama ñu tëggale ñaari boor da ngeen koy accepter rek bu leeral ko jotee ngeen leeral ko rek la vie continue ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di encourage sunu lions yi basket yi rawatina suma xarit capitaine ba Youssou Ndoy ñoom Branco Badiog ñoom ña fa nekk ñëpp ñoom góor gi si jàng vraiment ah def ngeen compétition ñu bëggoon ko d'Afrique yéen ngeen bëggoon ko yàlla dogal ngeen am troisième place muy médaille de bronze ñu loolu mooy àddina la vie continue beneen édition ngi ñëwaat ñu jëm tamit Congo suba ñu nga fa ñoom Sadio Mané ak Saliou Ciss yàlla ngeen fa am ndam pour éliminatoire coupe du monde bi loolu lañ leen indiloon tey di ñaan jàmm Sénégal di wax ka ni ñu ngi leen di jox dig daje suba ci beneen Zidane ak ki nga xam ne ni moom moo di Babacar ak équipe bu Equivox